Thank you. bu nekk Seydina Muhammad yokkute bu rëy la jël kàddu suñu suñu si am xam-xam bi ñuy toog nga xam ne mooy bi ci lépp jaar nañ si abaat abaat kalaat bi lépp si moom la jaar dañu xaaral ñu ñuy wax kii di wóor mu ñëw fa yëgoo ñu ko kii jaarale ko si cheikh bu baax bi cheikh moo xam bi di cheikh suñu sabaa wax imam mu cheikh tuwaa Abdou Xabour mu maamoon jaar borom sa mu dëkk ñu àndal nekkal ko sëñ bi ñu ngi suñu yëngu xase yi ñëpp moo ñu defal ak ñu bëri ñu sax amoon nañu yéene sax bis bu gën a kii waaye seen xaar bi moo ko yemalee ñu rek kon sëñ bi moom seen xaar bi bi moo def kàddu nga ne ñu ngi lay sant bu baax sa teewaay ba mu wax la ko si danga ko ne bis bi sa ko yebal kuréel bi ñëw jàng xas teew kon ñu ngi lay sant bu baax a baax si jiw moom tam ñu ngi may yóbbante kàddu sant mbooloo bi teew yëpp ñu leen wàcce kaamil ak gorom yi képp koo xam te ne da ngaa sol sa daal di ñëw ci bis bi seen xaar nee na amul sa xarit comme kilifa bi daa bokk te bëgg wax te toogaay yi yaatu moo tax ñu yaamale kàddu yi foofu képp koo xam ne daal teew na di ñëw ci bis bi seen xaar nee na sant na bu baax a baax a baax a baax kon jooju ñu ngi lay joxal kàddu yi baax a baax. jërëjëf ak yi na waaye am na ko séer ndax képp koo xam ne yéen lay tudd di tudd sëñ Moustapha boo ñëwee ci jataay bii ñëw nga foo war a Mor Jaara borom saam kat doo jege jege maam Jaara mu gën la koo jege muy mbokkum Sëriñ Tuubaa mu sës ci moom rek bàyyee monsieur Abdou Khafour mu bàyyee monsieur Moustapha imam borom ñu xam ko bu baax xam fi mu bokkee ci Serigne Touba xamit ni ñuy doxee ci Serigne Touba kon ku ñu defar jataay boo dikk nii rek nga ko mën a def kon Serigne bi ñu ngi lay sant bu def moom moo di bëri ñu tase ak naa maa ngi leen di fay yéen ñëpp <laughs> site internet yi yëpp maa leen di fay. waaw di leen bu baax. Mm-hmm. ñëw tey li nga xamante ni moom moo di bi. Mm-hmm. Euh, waaye tamit sa taxawaay sa diggante ak Marichou ak li nga xamante waaw xam nga ñun artiste lañ tey artistes yi ay mbokk lañ parce que defe naa ni man sama sama sama sama. sama succès bi gën a ba euh, bi gën a am doole ba ñëpp xam ko bu baax a baax a baax mm-hmm. man ak Marichou ñoo ko def donc bi lii di jëkkëram nekk sama xarit depuis moom ñoo defandoo aar bi ñoo commencé ndoo ci zéro donc bu xewlee dafay baax ñu bàyyi li ñuy def ñëw fekk si leen parce que tamit nit nit ay mbokkam artistes yi artistes yi ñooy seen mbokk ak ñee yéen ñi nga xamante ni yéen ay site internet du loolu moo tax ñu tew fi nii bu fekkee tudd bi loolu dafay baax. Mhm. alors mhm. si loolu. rafet rek xam nga nag diggante bu neexee moom doom bu juddu rek bu ñu ko tuddewul yontu yàlla Muhammad nan ko tuddee ci mbokk yi rek parce que day wane ni diggante Billy ak famille Marichou diggante bu ratax la diggante bu rafet la diggante bu bu bu neex la loolu waral mu am doom ah, mu nekk góor mu xelam nekk ci papa Marichou donc loolu day permettre day wane ni ñoom famille bi benn lañu parce que jëkkër ak jabar nit dañoo war am complicité boo xamante ni bi tey ji boo amee doom ma ni ngooñ laa ko tuddee sax nga ne ma waaw parce que suñu complicité moo tax donc kon ñu ngi ñaanal doom ji yàlla màggal ko te barkeel ko barke Cheikhou Tidiane ak barke mag ñu baax ñëpp ba li nga xamante ne moom la parent mi bëgg ci moom parce que tey boo ñëwee ci xew mi da ngay kontaan ay xasaayit lañ fi nekk wàcc kaamel ci suba ba léegi donc loolu euh, lu baax la kon ñu ngi naanal xale bi dund te barkeel euh, dem ba jëriñ ay waajuram waa d'accord alors ñu gis ñëpp da ngeen a mobiliser wu ñëw ci non seulement waaye tamit boobu ba léegi yéen a ngi dem ak dikk. Mhm. Euh, mu mel ni que seen diggante dafa mel ni ratax na par rapport ak yenn artistes yi nga xamante ni tout le temps dañuy nemmeeku ni day am ay problème seen diggante. Mhm. waaw ñoom dañoo am jotu am problème rek xam nga artiste moom bu nekkee artiste nga. nga tuddee sa bopp artiste mooy koo xamante ki yow lu ñëw war nga ko mën a bàyyi mu jàll artiste warul mer amul artiste warul jàppante ay mer yooyu ñi nag ñoom dañoo ay problème ñoom ñoom seen art dafa des parce que artiste moom mooy koo xamante ne ko jàngal àdduna ba pare yar ko ba pare mu doog a nekk artiste mais boo xëyee suba teel nekk artiste nag mooy waral yi am mi li am nii di xuloog di def ay affaire mais man de Baye Fall du ma jàppal kenn mer parce que loo ma def nii bu ti boo ma ko defee timis balaa ñetti rakk yi jeex ma wax la ko après mu jeex Voilà. laa jógee lépp laa yow sa bis nii rek la mën a mel Marichou ñëwoo kër gi riite ko ñëwoo kër gi toj ko wala nga ñëw rek jël sa gorey def leen nawle dangaa jël sa gorey def leen yaay def leen bàjjan teg leen ca kaw moo tax bu sa bis dikkee dana nu yónnee ay kàddu waaye dana nu yëkkati ay kàddu waaye nag dañu laa dégg ko góor gu baax xaadim nga xam dañ koo tuddee xaadim borom jumaa ji

balaa boobu Pod nañ lay nuyu di la ndokkeel ci seen euh, xew bi nga xamante ni tey pas mal de célébrité nuyu wuyu si nañ leen. waaw mmh. ah, dëgg la euh, ñu ngi fay bu baax di kontaan ci yéen également euh, di leen di nuyu tamit di leen ziar bu baax a baax a baax ci bés bi. tey sa moo gu njëkk da kàddu gu njëkk lan lay doon ci xew bi nga xamante ni gis ngeen Marichou mu woote ak moom ak Billy ñaari acteur nekkoon ci série Pod et Marichou ñu xamee leen fa ñu nekk mu nekk xew boo xamante ni pas mal d'artistes wuyu si nañ muy pas mal de célébrité tey sa moo gu njëkk bu ñu la waxoon lan ngay wax ci xew bi waaw bon dañ si euh, li euh, contentement la déjà bon may ci félicité di encourager tamit bu baax a baax a baax euh, Marichou quoi parce que tamit euh, artiste la quoi boo xamante ne tey dañoo liggéeyandoo ñu doorandoo man ak moom parce que tey suñ demee ba naan pot tey Marichou moo tax. xam nga tey man j'ai l'habitude de le dire tey jii le succès de Pod et Marichou du Pod du keneen Marichou la quoi moom moo ko def donc tey man mën naa ne moom moo ma def ki ma doon donc ñuy cheminer. ensemble disons 2015 ba léegi maanaam presque dix ans ngeen di ànd dara mosul ñaaw sama diggante ak moom ñuy àndandoo di liggéeyandoo saison en saison amul kenn problème donc xewam su ko amee muy mariage am ba ci tey jii nii mu war a ngénte damay ñëw teew su amul lépp lu mu waroon def dama koy bàyyi ñëw teewal ko man nag ñëpp nee nañ xew rek laay dem mais amul benn problème <laughs> nee nañ yow yaay wër xew yi mais hmm. tey jii nii c'est bien quoi et occasion la <laughs> moom damay xew rek mais occasion la tey pour que ma ñu gisante waat parce que dañoo namante woon parce que sa fait lu yàgg ni gisante wuñu même Billy tamit également donc plaisir la ma retrouver waale waat production ñoo taxaw wala lan waaw non non bon exactement production yi la xam nga rek ku ci nekk da nekk sa liggéey xam nga donc nit ñi amatuñu jot mais quand même dañuy déggante mais tey occasion la tey ñu tasewaat tey soo gisee acteur u Pod et Marichou yi ñëppaa ngi fii ñoom Momo xam nga ñoom abu kebe bu Karma tu vois donc tey grande retrouvaille la woon tamit ñu tous ensemble mu nekk plaisir bu rafet et tey xew bii nii dañuy wax ne am doom bu góor moom franchement c'est quelque chose de magnifique donc ñu ko si félicité bu baax également tamit quoi si tour bi si tur bi tamit parce que tey euh, nga am doom nga mu tuddee ko papay Marichou bi nga xam te ne dafa gaañu bu yàggul mu nekk acte bu rafet boo xam te ne bi def na ko quoi donc vraiment contentement bu mag lañ siy am quoi yaa ni Ah. jërëjëf am yaay cay njëkk yaay cay mujj. réew la yaay cay njëkk yaay cay mujj. donc boo doon suñu bàcc dana la gis. ñun fal ko yeneen tamit. su amee naqar yaa ci mën. bu amee bànneex yaa ci mën. su dee mbégte yaa ci mën lu mu doon yaa ci mën. boo xewlee day ñëw ku mel ni moom day dikk. ñëpp ñëw yaa jàppoo gore te doo dikk la benn yoon barki sa. déedéet Marisol amoo melo. amoo jikko amul melokaan doo changé. loolaan de ñu koy safroo ci kuy sëñ Bamba nga yor. xoolal moo tax yàlla la tubarkal la Baye bi. xoolu borom bii laa yor. loolu sëriñ Bamba. bu sama jafara ma ko xàll bu ñu suñu dira. juróomi sooroon jënd ku ma seera sàngatu baax. dëgg Bamba la ñu mun di ñu tiitaroo. barke sëriñ Bamba. la Abbas wala Cheikhul Khadim waxal ca kaw bàyyi Serigne Salim murid gudul borom jàpp xam ne tubaarkàlla day sëkkali ngañ yi xam ne dóori kuur yi nga xam ne tubaarkàlla turuxul jigéen jàppul jigéen barke Serigne Bamba dalaa sagal sagal la ñu sago yi jëkkër ci kër ci jëkkër ci rew ci jëkkër ji mooy ki lay sago ki lay tiitaroo ki faj sa mer ki dawal say gaay ki jël say noonu jël ñu tàllal ba caaga jaay koo koy kan mooy Mamba maam Bamba may ma sama xarit doguma la tubaar kàlla tudd bi waa kër Sëriñ Tuubaa yaa ngi nii waa kër Cheikh Fall yaa ngi nii te lu mu am moo ko may boppam xam nga ku ma yónni doomi Cheikh Abdoulaye moo tax ma dëkk Fass jóge ba Touba ñëw te tubaar kàlla mu bëgg gorom ma jox na ma sagal na ma suturaal na ma bëgg na Sëriñ Xaadim Xaadim Baay Faal rek la parce que Sëriñ mu di gënal di Baay Faal yow tubaarkàlla loo am ci kër gi yàlla nañ ko sax yàlla nañ sa wërsëg subulu yow yaa baax yaa gore subulu tubaarkàlla maasàllaa baax a tax tubaarkàlla macha ñu tuddee tuddee ko sa baay loolu yombul dinaa ko loolu yombul. man maay damay doom ah, dama ànd ba yàq ci kii ba yàqu ma ko. ah. c'est bon. surtout lu am yaay cay njëkk yaay cay mujj. yaay cay njëkk yaay cay mujj. looloo la ñu tubaab ci benn bopp. barke nañ ci bi. su amee naqar yaa ci mën. su amee bànneex yaa ci mën. su dee mbégte yaa ci mën lu mu doon yaa ci mën. boo feelee day ñëw ku mel ni moom day dikk ñëpp ñëw. yaay jàppoo ko rek ñu dikk la benn yoon barke sa léegi. ma ne soo amoo melo. amoo jikko amoo melo kan doo changé. looloo am de. ci ko sëriñ Bamba nga yor. moo tax yàlla boole la ak tubaab Baye Fall. yaa ngi jëlaat bii jëlaat juróomi sooroon ñi ci ba seere sanga Touba Serigne Bamba la ñu mundu ñu tiitaroo barke Serigne Bamba yàlla boolaat ku baax boolaat Cheikhul Khadim ñu bàyyi Serigne Saliou borom dund borom jàpp na borom jox nga jaroon xëy la waaye boolaat bàyyi faal yi nga xam ne tubaarkalla day sëqali ngañ yi nga xam ne day dóori kuur yi nga xam ne tubaarkalla toroxul jigéen jàppul jigéen barke Serigne Bamba balaa sagal sagal la ci sago yi jëkkër ji kër ci jëkkër ji raw ci jëkkër ji mooy ki lay sago ki lay tiitaroo di faj sa mer di la dawal say gaay di jël say noonu jël ñu tàllal ba caaka jaay boobay kan mooy maam mooy maam ba dox Serigne Touba mooy ma ay ca doxalal sama xarit doguma la fatalu tubaab kàlla tudd ñu wàcc Serigne Touba yaa ngi nii mën ko fatalu wàcc Cheikh Fall yaa ngi nii te lu mu am moo ko may ba barke ko ma yónni yoonu Cheikh Abdou Lahat moo tax ma dëkk Fass jóge ba Touba ñëw te tubaab kàlla mu bëgg góorom fonk góorom kon xoolal ko la ma jox ni ma day kon la wax sumul dën xale bi bëgg na ma sagal na ma suturaal na ma bëgg na sëriñ Xaadim Xaadim Baay Faal rek la barke sëriñ Tuubaa yow tubaarkàlla loo am ci kër gi yàlla nañ sa sax yàlla nañ sa wërsëg subulu yow yaa baax yaa gore subulu tubaarkàlla macha allah nee naa ko yaay maam jaara nee naa ko yaay maam jaara sécurité nee naa ko yaay maam jaara sécurité baa ngi rëdd nga Baye Fall la ak Asma wuri Baye Fall la Abdou Serigne Bamba ma Fall la Xaadim Baye Fall la Baye Fall la waaye Xaadim Baye Fall la Baye Fall la Baye Fall la ko dëkk Baye Lalla Fall ko dëkk Baye Fall la yaay Maam Jaara yaay Maam Jaara yow boo ñëwee tubarkalla dinaa boo ñëwee géew dina la jàpp yow ma jëlee te bàyyiwuma tubarkalla sumul bàcc loolu li ma nga jaay yow barke Sëriñ Tuubaa yaa ni ma taral ma la taral ko ko ci waaw li nga jël bàyyi ma bàcc li nga xam ne moo bëgg barke Sëñ Touba sama rakk joojee man ko sama rakk joojee day bàcc li ñëpp a sëñ si bëri ay doo ma bàyyi yow yàlla lay boole ñu baax di ngeen Thank you. yaa problème nag oui. sëñ Sakho. wala Marie. ayca waaw loolu ngay. ah dëgg ko tëray Tuuba lay dem yaakaar dama ci Baye Fall Baye Fall lañu Yes, I'm so sorry. Thank you. touch my bachelor. bëgg fàllu barke yonent bi insistel ci loolu insiste ci waaw

Abi, what do you want?

tubaar fakal la da ngay Baay Faal ñëw tey fii fekk si fi ab Baay Faal

gars yi ku gis photo yu rafet nag dootoo photo de parce que dafa am sonn day dem noppalu bi ngeen concentré wu kuy photo nga photo rapidement. Ah. Taas ya. Oh, ini video aku dah. Tahu dah, tahu dah kau. Am am am. Am am pila am am am. Mana kau tu bawa perkara bulan ni ada? yow ma bu say see day rafet. bu sa jikko rafet loo sol bu waaye bu sa jikko ñaawee loo sol bu rafet. jaaba sax boo ko soloon bu rafet. ndax ñu woon nga gi ñu woon parce gi ñu woon lii dëkkat bi. Serigne Khady bi waaye man ngaa def ak moom. ndax yaru nga maanu nga mais xaw ma faral ko NBA mais comme faral ma faral ko NBA. man su ma la jënd. bu ne bu yaroo respecté ko comme koo kii la ci baax la koy jox. sëñ Fatou ma ko. jàmbaar sëñ mu laaw laay fa yow kii nga mën a am. ndax déggal nga sa baay déggal nga sa yaay. am nga jom bi jàng jotee nga jàng bi liggéey jotee nga teel a liggéey bi tekki jotee nga tekki ban soxla jotee su baax nga am yàlla yàlla def sa jàmm. Mansour Mbaye bu baax baax na Mbaye bu baax baax na waaye baax sa bopp kër mooy tax loo amal ko. kon bu yoroo rek nga service nii la di dem di dem. say njëkk lalal nanu la say goro lalal nanu la yaa ko liggéey. boo solo woon ba takk jamaa ka gore yi déglu njëkk yi déglu dara. Maricha maa ngi

ok pare. ah mais yow rek. Disa. Disa ye. ne ko mu jóg tuuti rek tey soxna si jógal tuuti rek soxna si soxna si. yaa ngi feeñ waaw. voilà. C'est moi. Non, non, man bëgguma ko taw la. Bëgguma ko taw. Bëgguma ñu TikTok man. Arrête, arrête. non non bëgguma ñu TikTok ah bëgguma ñu TikTok ba xool naa ko mu am. Thank you. danañ ko soxna si soxna si génn. waroon bett lool waroon bett lool. waaw may leen may leen voilà. am ah, am. waaw. c'est bon. Ah, ah, day élément taxawal. yaa ko wàññi de ah. élément taxawal. voilà baax na maa ngi baax maa ngi baax maa ngi baax. may leen may leen

lanu koy defal jigéen ju yaru lanu koy defal mu toog ci wetu ndeyam ba dajee góor gu baax mu teral bu fekkoon ne ci mbedd bi lanu la fekk ay poti kaw sol ay sukaan ngay am xaaral xaadim ñëw xaaral muy ñëw xaaral seen xaadim mu ñëw tubaar fa kàlla naa la dafa foot te naw leen nga moo tax mu teral boo ñëw rusloo ay bokkam rusloo ndeyam am na rusloo baayam kon bu sa bis ñëwee day korosere balaa nan jamono ji daa dëgër waaye yow lu mu def feem na ko nabit nabit yaa seen ñu laaj lay bay mën naa ne Rijaal mën naa Bili mën naa ne Xaadim Seen ñu fayale seen bambam mi ci liggéey waaw bàyyi leen ko lii yéen a ngi yàq programme doxal naa ko bul yàkkam ji. bu baax ko kaay bi ñu yàlla tax a teew. dóor ko ba dóor bu baax jël ko bu sa bis di génn. ayca sëñ Fadou. Fadou caméra yi dañ la dal de. waaw waaw. léegi nag baax na ayca sama soxna si na nim noppalu loolu laa bëgg ah. ndeysaan. demal demal am na kii da koy yóbbu kii da koy yóbbu. mais may ko tuuti mu fotow ak maman dugal bu baax ñu ñëw nii waaw aja bismillah eh buka sa foto bu ma liggéey c'est bon waaw waaw waaw waaw mais ñu ngi waaw. benn la ci ñoom waaw yéen ñoom léegi mu yéeg wàcc waaw. da dem ci milieu bi quoi. dama jox ko pochette bi. moo doon toppale bi ci boole day nag sa bidu mu daaw rek donc may ma bi

seen tubaab sa kàll boo ñëwoon sa kàll même bu ko ban jaajëf aja aja Mari soxla góor bu baax waa xaaj ma am na jigéen bu baax bu baax baax na bay bu baax baax na waaye baax na moom ngeen tax moo tax woo na ko. day yëg waataat day yëg waataat waaw day waataat